topp bàyyi kuy bojjaan dama wax dama ne ginaar du gis kuy taxani mu di ko topp bàyyi kuy bojjaan fii laa nekk ci buntu kër toon sekk ndeyama ni nii waali bàllaam biig nan ma woon ne ma kaay jël si sam xar xanaa kay weddi gis moo ko ci mi ngi déedéet laa do jël la boo xam ne jeune la boo xam ne moom la ñëpp di wër gis naa ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim mi ngi ñëw ji doom de ku sañoon jur ko. wallahi foofu rek laa mën a yem junj doy na borom mu xel. ci moom rek ñaanal ko. di ñaan ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim. Mhm. sang bi nga xam ne soo gisee keroog ma summi samay dàll ci biir këram ñuy laaj naan lan moo tax muy def émission ak Wally summi ay dàll warmaal gu mu warmaal Sëñ Touba moo tax may summi samay dàll. maa ngi ñaan kii suñu borom yàlla na ko tingoom ba ñëpp seen ko te dara bañ amiin waay ci barke amiin ku sañul.